borom tubaa nee na ku bëgg a mucc da ngay sax ci juróom-ñeent yi ragal yàlla ragal ku ragal yàlla ragal ku ragalul yàlla bàyyi lu bon bàyyi ku bon bàyyi fu bon loo xamul bu ko wax loo mënul bu ko def loo moomul maandu maandu ca